que lan la xëy na élection nekkul suñu kanam mais da nga enchaîné trois élections yoo xam ne diggante 2022 ak léegi même si législative yi euh, mujjul en euh, tout da ne ci benn lancé en fait ma bëgg a xam ba xam da da nga ciy continuer. waaw xam nga man man euh, awma carrière politique je le dis clairement. Mhm. awma carrière politique wax naa ko barki dem waa Kaolack nee naa leen xëy na li may yàqal mooy. dañ ne ma boo paree da ngay téye militants yi def ay comité ma ne en ah, sincèrement man mënuma ko man c'est pas ça mënuma ko su ma ko mënoon loolu laay def ndax loolu il faut nga nekk di wax lu du dëgg il faut que euh, waaw nga leen di alimenter il faut que euh, lu lu xew nga ne fa naan dramé loolu mun tax man li ma am moom mooy jël Kaolack maire bi liggéey liggéey ko jël samay euh, ñi nga xam ne ñoom laa àndal ne leen fexe leen ma nga xam ne ngeen satisfaire population bi ci côté seeni bëgg-bëgg ak ci côté économie léegi nag xëy na su fekkee population bi da nga dem ba nga xam ne ñoom lan lañ bëgg moom mooy toujours dajaloo def nangam baax na amul benn problème ndax dañ koy def lu mel ne foire dañ koy def lu mel ne su ki amee su comme suba rek suba rek dafa am benn ndog boo xam ne nii ñu ngi koy def fële day on a invité 700 personnes yoo xam ne ay Kaolack waa yoo xam ne nii joxoo leen paas joxoo leen dara ci suba si dafa am ay tare alxuraan comme bi seeni koo defoon à notre kii boo xam ne leen distribué lu mat cinq millions. Hmm. man yooyu laa gën a man wala artisans yi soxla yooyu laa gën a man da su demee nag ba nga xam ne loolu. àndul ak politique du loolu politique man damay jàpp ne man awma carrière politique mm-hmm. parce que mënuma ko ce que je peux mooy li nga xam ne nii suñ suñ ko defee ba pare mu nekk utile léegi nag loolu danaa ko continuer ah incha allah bu élection amee rek su ma xoolee ne situation bi am naa ci yaakaar ne man naa ci dem am ci njariñ ma dem ci pour ñaar ñu dégg sama baat ak tamit su fekkee euh, mën nañ ci am ndam ñu am ko ci ndam. Ah, mais mais mënuma la wax tey ne la. Ah. lii mooy sama carrière politique ki lii ak loolu waxoon naa ko ba ma gañee mairie mm-hmm. tamit loolu laa waxoon ñëpp et je pense changé wul daal.